taal taalibe gi itam mooy waajal jëf ji yéene lu baax te yàlla rekk tax jëf lu baax di wax lu baax jëf lu baax te yàlla rekk tax ci sax ca ñu gën a góorgóorlu bu baax mañ cee dolli rek moo di ñu gën a delloo si xel yi bu baax ci tawfeex jure yi nga xam ne am nañu ko mooy boole gi suñu boroom boole sëriñ bi mu gën a delloo ci xel yi bu baax xel xëy na xel yi jógu ci sax waaye tawfeex jure ji na am ak def gi suñu borom def ci suñuy xol mu bëgg sëriñ bi nu bëgg sëñ bi ñun ñëpp góor jigéen maa ngi daw ñun ñëpp ci yem ñun ñëpp ko bëgg ci biir loolu kon war nañu sàmmanteeg xormaam waxtu wu nekk waxtu wu nekk war nañu sàmmanteeg xormaam ñun ñëpp nag amul góor amul jigéen amul mag amul ndaw kenn ku ne fa nga ca toll boo te boo nattee sa bëgg sëriñ bi dara waru caa dolli ku lu dul orma sa digganteeg moom orma sa digganteeg moom nga rus jëf lenn lu dul safaan ngir ci sëriñ bi xormaal ko xormaal barab bii mu nekk muy dëkk bi muy Tuubaa xorma ji ñun ñëpp la war amul góor amul jigéen amul mag amul ndaw kenn ku ne fa nga ca toll mën ngaa jëfe foofa dëkk bi kenn ku ne ci ñun war naa am kers ci sëriñ bi war naa ruus sëriñ bi ci nekk fi di fi nekkee di fi nekkee sabaan ku fi nekk war ngaa xam li nga am tawfeex ji nga am sëriñ bi ba bokk ci ñooñam amaat tawfeex dëkk moom fii war nga xam nag kon li nga am sa digg sëriñ bi xam ne ormal ko war na la waaye ormal dëkk bi bi fi ci barab bi mu nekk war na la la ca dam ta tàmbale ca gone gu ndaw ga lu mu doon doon gone gone lu mu doon lu mu doon doon gone lu ñàkk lu mu xam lu jeexital ci moom ci baaxu sëriñ bi loola mu tàmbale caa rus sëriñ bi tàmbali caa am kersa di góorgóorlu lu baax lépp lu mu xam ne ab safaan la mu di ko wattandiku ko di ko wattandikoo def ci dëkk bi loolu ca tàmbali ca gone gu ndaw ga jëm ci ki nga xam ne dëgg la gone yi ñooy yaakaari ëllëg kon lu ñu doon doon di gone it war nañoo bàyyi xel ci xam ne ñoo yaakaari ëllëg yi te xam ne lu baax rek lañu bëgg ci ñoom ñu xam ne am na xéewal bu rëy judd fii fi sëriñ bi kon war nañoo teel def seen xel ci ormal ko ormal barab bi ci bañ fàttaliku di fi jëf benn safaan muy gone gi muy ndaw li rawatina ndaw li ñi nga xam ne ñooy ndaw yi loolu moo war a nekk ci ñoom worma wormal sëriñ bi wormal dëkk bi ndaw ñi rawatina ñoom ñoo ñàkkaar yi war nañoo xam leen seen wartiif xam ne buñ dee wax sàmm war dëkk bi sàmm war sëriñ bi sàmm war ma dëkk bi dafa mel ne kon ñoo ci jiitu muy ndaw yi ñoom bu ñu xamoon dañuy jàpp ne dañuy xam ne ñu war a doon ñi wattu dëkk bi ñi koy wattu sëriñ bi gannaaw bu ñu góorgóorlu seen bopp ba noppi ci bëgg sëriñ bi gi ñu war a bëgg ak pastif ba ñu war a am ci sëriñ bi ak war ma war ma war ma jëleen ci war ndaw ñi dañoo war a jàpp ñoom dañoo war a jàpp ne ñooy ñooy ñi nga xam ne ñooy ñooy sawatu dëkk bi ñoo koy wattu sëriñ bi gannaaw bu ñu góorgóorlu seen bopp ba noppi ci kaw jéemal góorgóorlu tegu ci yoonu jub njub mooy buntu lépp lu baax njub mooy jiitu lépp bu jub amee lépp lu baax yomb xam ngi yomb jëfe gi yomb bu jub amul lépp tëju kon ndaw ñi war nañoo góorgóorlu bu baax xam seen bopp góorgóorlu bu baax xam ne li ñu bëgg ci seen bopp njub rekk leen koy may ca dolli ko mooy gën a góorgóorlu bu baax sàmmoonte seen diine gën a góorgóorlu bu baax sàmmoonte seen taalibe li ñu bëgg seen bopp foofu la gën a yombe lu dul loolu dolli fitna rekk la loolu mooy ndaw ñi ñi nga xam ne ñoo toll ñoo ca toll ñoom dañoo war a jàpp ne ñoo war a wattu dëkk bi ñoo war a ñoo war a ñoo dëkk bi sëñ bi bu ñu xamoon loolu te def ko seen yitte dana leen amal njëriñ lool seen dundu àdduna gii waxuma la gu àllaaxira gañ jëm nañu góorgóorlu bu baax dellu seeni xel te xam ne dugg dëgg ma àdduna moom fitna juree rekk la góorgóorlu ci xam li nu am tawfeex june ju nu am muy sëriñ bi wala wala bi ko dëkkaat moom loolu war nañ koo xam bu baax te gën ci góorgóorlu ja xam ne loolu moo gën a gaaw ci may nu li nu bëgg waxuma la jëf ji nga xam ne suñ diggante ak suñu borom lañ ko sëqal yàlla yomb a jëflante lool boo yéenee te defoo dara sax mu fay mu fay la dencal la boo jëfee benn mu defal la ko fukk tàmbalee ko di ko wéy mën na ko yokk di wéy waxuma laa nag defaru biir ga xam ne moo moom lay àndal defaru biir ga mooy àndal day day indi day day jeex day day day jeexital barke barke boo xam ne moo lay defaral sa sa mbir yépp ah. lu ci dolli ku muy mag ñi kilifa yi xam naa ni ñu ngi ci sax waaye ñu gën a góorgóorlu ci njaboot bi ñu gën a góorgóor ci njaboot gi xëy na jamono di sax jamono tax na yombul waaye góor góorgóorlu suñu kenn kàttan góor lu ci ci ci yar ci yar leen ci sunuy sunuy su lépp sunuy kem kàttan sunuy sunuy làmmiñ sunuy jëf suñu digganteeg ñoom suñu xamal rawatina jàngal taxaw leen bu baax njàng mi njàng moom ñu gën a mën a noppal ci njaboot gi ñu góorgóorlu ñu ngi ci sax waaye ñu góorgóorlu bu baax gën leen taxaw ci jàmm njàng mi ñu tolloo ci alxuraan ñu def ci yitte ju mat sëkk ni ko ni ko baaxee defee buñ bu bu jógee ci loolu ñu góorgóorlu bu baax jàng xam-xam kon loolu moom mooy suñu njariñ li mu bëgg loolu rek noo ko mën a may lu dul loolu fitna rek lay doon ma dellu si dëkk bi dellusi dëkk bi li nu ci war ñun yëpp mooy xormaal sëriñ bi xormaal barab bi ci tolluwaay jamono dana di xalaat ne ñi dëkk ci dëkk bi bu ñu dooloo sëriñ bi nekk seenu liggéey ñiy bay di bay ni sàmm di sàmm ni jaay di jaay te dooloo sëriñ bi loolu da leen gàddu ci lépp luy bëgg ci na gën a noppalee na mu gën a barkeele dana di wax dama di xalaat ne dëkk bi ñaar rek ñaar rek rek ko seq ñi fi dëkk nañ doyloo sëriñ bi te fonk seenub liggéey yàlla dafa leen ci barke ñi fi ñëw dëkk bi tax leen a jóg bu leen dara tax a jóg na leen sëriñ bi tax a jóg ku fi ñëw na ko sëriñ bi tax a jóg saare ñaan mu amal la njariñ lool te du du ànd ak lu benn lor nga dellu ci sa liggéey kon ñaar ñooñu rek ko séq lu góorgóorlu bu baax ci xam li ñu am mooy dëkk bi ak boroom dëkk bi nekk bi fi nekk nan góorgóorlu bu baax sa am sàmm dëkk bi nan gën a selle ndax sell na ba noppi ndax ki fi nekk waaye nag mu nu sellal ko ci suñuy xel sellal ko ci suñuy xol sell sellu ko sama borom buñ dee xadaasa loolu moo tax sëriñ bi mën na noo góorgóorlu bu baax ci sellalal ko dëkk bi dëkkam bi ndax sell rek la ca bëggoon bi mu fi ñëw riir na ab diir ngir suuf barab boo xam ne dafay barab bu jaamu yàlla rek loolu wut barab bu mën a mën a liggéeyal yont bi yàlla defal ko ko loolu mu fagguwaale ci njaboot gi yépp te lam ca faggu lam ca leen faggul jaboo na ci boroomam damay wax ne sëriñ bi faggu lu mat a faggu faggul nanu ko lu mat a ñaan ñaan na ko boroomam te may na ko kon nu góorgóorlu bu baax ci xam li nu am te sàmm ko bu baax war maa dëkk bi rek suñu kem kàttan mooy warmal sëriñ bi loolu ñun ñëpp ko bokk gone am na ci wàll jigéen am na ci wàll góor am ci wàll ndaw am ci wàll mag am ci wàll ñun ñëpp ñun ñëpp bëgg nañ sëriñ bi la ca des kon nan xam nan gën a xam lanu ci war suñu diggante ak moom dara jiitu ci nag warmaal ko ci ruus ruus ko am kersa ci nekk fi nekk nekk fi tabaan lu góorgóorlu bu baax sunu kem kàttan te delloo si sunu xel ak suñu ittee ñu delloo si ko nag ci njaboot gi góorgóor ci njaboot gi bu baax xam naa sax ñu ngi ci kem kàttan waaye ñu ko gën ci góor lu baax rek ci yar leen jàngal leen def ci ñoom yitte ñoom bi ñu xam li leen bëggal lu gën a tuuti tuuti xel ma ko yàlla dénk mën na jaa xamee lu baax lañ ko bëggal mu góorgóorlu ca ndaw li nga xam ne dafa toll ci dugg àdduna kooku mu xam ne wërtaxante wala daal loolu góorgóorlu tegu ci yoonu jub bu tegu ci yoonu jub rek li mu bëgg ci lu baax lépp li ko dana ko yomb li mu bëgg ci lu baax lépp dana ko yomb mag ñi di gën noonu rek yokk yitte ji bu baax ji jaboot bi di doon lay sant nag bu baax xam nan doxin wi xam nan na itam seen kem kàttan yéen a nga ca taxawaayu diini ji fa tabaarakallaahu alhamdulilahi rabbil alamin taxawaay yëpp itam gis nañ ko noo ngi sant yàlla di leen sant bu baax di leen gërëm bu baax di doon la ñaan rek suñu boom gëm noo gàttu nag tawfeex sëriñ Tuubaa ba ñun ñëpp nu gën a soññ suñu bopp ci nekk ci li sëriñ li sëriñ bëgg ci noonu noo ngi sant ñëpp bokk yëpp bokki taalibe bi yëpp ñoo leen sant leen gënam di xam di wax ne kàddu yi jumluñ ci dara lu dul lu nu bëgg suñu bopp rek dafa mel ne dañ leen ci jiital lu nu bëgg suñu bopp rek moom dañ leen bëggal dañ leen bëggal loolu rek moo war a wax ji kon nanu góor lu baax gën a sàmmante suñu diine gën a gën a fonk suñu taalibe gën a yokk suñu itte la jey suñu kem kàttan jërë ngeen jëf noo ngi sant ñëpp gannaaw ba leen siyaaree sunu xol eh, sedd na ci taxawaay yi sunu xel dal na rafet na jot bu baax a baax itam jërë ngeen jëf. tàllee sa mi ñaan. ñu